waaw gars yi neen kañ ngay takk soxna. <laughs> waaw waaw sant yàlla bu baax rek. waaw julli si bi gërëm suñu ñaar waajur sant Serigne Touba wér nag. waaw maanaam Badike li muy wax ni daanaka ci moom la jiitu parce que sunu mag la sunu kilifa la parce que na moom mag ñooy yërëm ndaw ñi rek mag yi tamit xa ndaw yi jox cër mag ñi mais Badike moom dañ ko ñaanal tawfeex ak taysiir am ngërëm sëñ Tuubaa parce que loolu moo gën lépp ci àddina moo gën àddina ak li ci moo ngi ci biir waaw soxna waaye yéene na ma ko daa ma ko yéene waaw mais nag xam naa suñu borom dina ko jot dina ko joxal léegi incha a baax. ma doxaan ma def dara waaw man moom maa ngi sëriñ bi rek ak entraînement yi waaw. dina yéeme de pour rek ndeysaan xam naa li ak ni ma xam nga soo fooyee nekk xale ba ni nga am noo toll xamoo loolu xam nga suñu borom dimbali la tamit ngay góorgóor di jaayante ak ndimbalu sëriñ bi ah jigéen ñi dañuy ñëw di ma wax seen bopp de waaye nag xam nga damay jaayante rek te xam ni xam naa lépp dina yomb daal waaw ah, sëñ tool morom waaw sëñ moo yombul waaw day da ngay dégg ñu soo liggéeyee góor yàlla bu la gërëmee yàlla mu la gërëm te ñun macha allah tagguñ suñu bopp waaye ci mbirum sëriñ bi dañuy bi dem waaw li sëñ Mourou Abi Mbacke di wax muy sëriñ Balla bi waaw nee na dina yàgg dina neex te loolu tawfeex la te waxu waaju baax moom tawfeex la li am ko yàlla nañ ko sëriñ booleel saa yi ren boo mais tey dama la bëggoon laaj ci combat mel ni Sokh ak ki nga ne mooy Franc du ma laaj Ouza en tant que koo xamante ne dafa dafa yéene Franc ndam àndam mais dama koy laaj en tant que consultant ñaari xale yi noo leen gisee seen état de forme ak ni ñu mel. waaw vraiment macha allah Franc tamit ñooy nekk Sokh tamit gis naa ko mais bëgg na combat bi état bi Sokh yore mosu ko yore ci lamb suñu waxante dëgg ba léegi bëgg na combat na ko Franc tamit ndaanaan la Franc tamit champion la ki mujj daan muy Tyson de kenn mënu ko ci lamb kon tey ñu bëri sax yaakaar ñun Franc dina bëri soq mais lamb kenn xamul kon kenn xamul ku ne nee maa ko xam rek nekk baay bi di def na ay président daan na gàmmu gi daan na nandi Franc daan bébé Saloum daan Tyson 2 kon Franc ñu ngi doon seen day bëri yeneen mbër suñu borom dogal bëri soq soq nag jàmbaar la te ko am ful la te ni mu bëgg na combat bi combat bu neex lay doon te ñaari jàmbaar lañ waaw boo doon conseil Franc nan la mën a bëree combat bi ba am ndam ci kaw soq waaw comme ni mu doon bëree rek xam nga France yooyu seen mbëru loxo la du mbëru du bëri ngemb lu bëri ko ay loxo lay bëri tey euh, combat yi moom mën na ci na fàq soq mën na dugg ci wet gi soq tamit def attention parce que la day bëri te du jàpp ngemb foq tamit li ñu kaw la na tàmbali ci xeex mais mën na jeexee ci ñuy bëri bëri bi waaw bëri li ñuy bëri parce que waaw bëri parce que ñoom ñaar dañuy na ñëw taxaw déglu Franc di contre pour su defee mu dina yokk ko Franc nag xam naa lii avantage am ci combat mooy ni mu bëri ci agent arbitre bi une seconde dix secondes mu dox ci koom xam naa xeex dina ci mais ci bëri la jeexee mais xam nga Franc day mbër boo xam mbëru loxo la mun na jàpp te na jàpp euh, te doo jàpp te luy avantage am moom mooy mu jàpp bañ soq jàpp ba pare bëri ci koom loolu mooy avantage combat am mais suy soq jàpp rek bëri bi mën naa yàgg parce que ñàkkul doole te tamit am la. lan la waaw soq mooy xam nga tey ngay bëri ñëw ñëpp jox ko favori loolu da gën a dope fu mu nekk ni soo gisee waxam nga xam ni vraiment jàmbar la soq am na ful am na fayda te bëgg na combat bi mais day dégg mbër moo xam te ne musul dégg muñul te mbër te ne musul dégg muñul ah day naqari daan te lu taxaw kanam day jàpp moo la mën te franc macha allah yaram dafa mën ci bëri ko ñoom góor soog mi xam nga bëri ñu mel ay Serigne Ndiaye de da ngay da moom euh, yaram dafa foqee ci luur yi waaw mu jafee manœuvre yi soq pour mu daan franc il faut mu bëri si mais su ko digloo franc di bëri si koom loolu du avantage soq waaw du avantage am franc tamit na bañ soq jàpp ngemb li parce di tëj day tëj bëri bi da tëj parce que su tëj day yàgg. soq xeex avantage am la ci lamb. waaw sooy seet ñoom ñaar ñëpp duñ bëgg duñ bëgg rek quoi parce que waaw dañuy xeex nii rek mais xeex bi yëpp pour jàppale ko mais li ma mooy saa xeexee dañuy jàppale ci kaw soq nag day takk léegi day takk ñu bëri di leen nga takk mu rëcc daan mais France dafa nekk mbër moo xamante du bëree ngemb day bëri ay loxo mbër mu ay loxo nag di bëri soq soq def attention quoi parce que France day bëri ay fàq day dugg ci wet gi mën na la bënn su mën nga ko daw di ko mbot sax mu yokku la parce que day bëri ay loxo kon franc li avantage mooy buy bëri te soq lu bëri du jàpp ba pare bëri si koom kooku combat mën na bañ a yàgg. mën na ko daan ci une minute. nangu sa ah waaw lamb daan lañ findi sax cinq secondes waaye nag lamb nag euh, kenn xam lu fay am ndam suñu borom a koy waaye nag lu ci am solo mooy ful ak fayda te Franc vraiment macha allah am na ful am na fayda liberté nga wax am na yar am na teggin te bëgg na entraînement deuxième turam entraînement la tudd soq nag gisuma ko gis naa ko si internet mais soo ko gisee wax dëgg fa yàlla pare na soq bi ma gis bokkul ak soq bëri indi état état bi pire lañ di moo tax na lamb ñaan naw la suñu bëree ku nekk mën a daan waaye nag ñun sañ nañ ñaan muy franc nga ñoo bokk nekk suñu borom defal ko ndam sedd sa gaw waaw mais combat bu neex la combat jàmbaar la combat der la waaye nekk ñoom kaw lay nekk maa lay jaajëf waaw ak sa jërëjëf